dañ koy choisir bokk moon sax ci comité bi ñom ñoko choisir choisir yenen 5 euh, euh, terrains ci Kaolack euh, tay ñu ñew pose première pierre bi xam ngeen né entre design entre mobiliser les fonds voter ko ñu approuver ko nga jëm def appel d'offre dem dem DCMP dem fi nga wara dem lepp dem entreprise bi jot avance am commencé liggéey liggéeyu at la te yow xam ngeen ni euh, lii def nañ ko daanaka ci lu matul 6 mois kon loolu mooy wane ne ñun ci liñ nekkoon ci lañ nekk ah euh, liñ ci jublu tamit du terrain boo xam ne dañuy pare rek sànni ko dañ koy def terrain boo xam ne ni dañuy fexe mu am ay revenu yoo xam ne nii ñi koy gere mën na terrain bii mën na dem ba juraat yeneen terrain li ma leen di wax mooy da ngeen a war a liggéey loo xam ne ëllëg balaa man ñaari at mairie bi dimbaliwaat leen quartier bi yëpp mooy yeneen terrain yi nekk fii yëpp mën a am terrain yu normé loolu mooy li nga xam ne nii boo ko defee yaa ngi jëmbat euh, sport boo xam ne nii ña cay màggi ëllëg revenu ya ñuy am dañuy ñëw indiwaat ko ci dëkk bi dimbali seen i parent à l' exemple de sa Mané à l' exemple de ñeneen ak ñeneen loolu def ci am importance investissement la ñun noonu lañ ko gisee. ñetti téeméeri million la léegi loolu lañ mooy ñetti terrain yi euh, loolu mairie bi am na ko mi ci budget am approuvé du loo xam ne dañ naan dañ koy teg suba ñuy wuti budget am nañ ko mi suñu budget et incha allah entreprise bi nee na yëpp dana ko pare ci huit mois mais bii moom dana léegi dana ko pare ci deux mois.